الحاج احمد بركاته داينا غروتي يلا بور بو مك بي نيو موم سيجيلنا كيب كوي يونو تيجاني جاكام جمو جك تشيس دارام جمو جك تشيس غمم غمو مك تي شيخنا تيجان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أما بعد السلام عليكم نيغا خامن نيغي ني ديغلو نيغي ني سيتان تي تيس اك سنغال اك موند بي فتبارك الله اللي خمني نك موتخ جتاي بي أم jataay جرين am te waa pour ñu def appel bo xamé ne dañuy woote incha allahu ca chambre de commerce dañ fay woote képp koo xam ne mën ngaa teew si nga teew si fa su ko defee pour téere bi nga xam ne dañ koo bind ci maam alxaaji Ahmad Baro muy tafsir Ahmad Baro te ay écrivain yu mag ñoo dajaloo bind ko ci njiital Serigne Hassan Ndiéguène ba nek ci Canada xam c'est un professeur bo xamné day joxé ay euh, cours dans les universités canadiennes fa lay joxe ay cours nak euh day def ay recherche yo xamné c'est ci scientifique ak yooyu yep, moo ñu doylo ko mu jitu ci je bi nga xamné ne lañ doon bind té ci ba ñu joxone ko euh, le professeur Iba Der ba mu defoon ci euh, ay dédicace hein, préface bi sommes euh ba ñu ñëmé ko puisque mom kay euh, ci ci xam def nañ fait ba bataille ji incha allahu dañoo fas le 21 décembre ci chambre de commerce bu Thiès à 10 heures bëgg nañu dédicace du livre moom la ñu bëgg a def kilifa yëpp nam invité nañ leen ñëpp invité nañ leen professeurs yi invité nañ leen

yépp dinañ ko résumer talxiis ko ba nga xamee ni incha allahu dinañ xam liñ ci wax su ko defee nag ku ko bëgg a jënd tam nga jënd ko gën a am gën a am xam-xam ci téere bi waaw xam-xam gën yaatu waaw su ko defee defe naa ne loolu daal lañuy def appel na ñëpp wuyu góor ak jigéen mag ak ndaw képp koo xam ne daal incha allahu kër gi kër alaaji Ahmad Baro intéressé na la ah nga ñëw nga ñëw ndax képp koo xam ne tam xam-xam intéressé na la nga ñëw ñu ngi lay xaar à cœur ouvert et à et au bras ouvert incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.